Ahmadiyya yeesal diine ak jamono la vision future. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi nga xam ne yéenay safoo di ñuy suivre au niveau national et international ci seen télévision YouTube Ahmadiyya TV. Euh, encore une fois de plus euh, monsieur Barji nutrithérapeute coach en nutrithérapie. moo ñëwaat encore beneen numéro pour jaajëfal leen bu baax a baax di leen présenté benn cadeau bu am solo mooy cadeau bu ñuy naan euh, le bilan du nouvelle an euh, dans la santé nutrithérapeutique quand on dit la santé nutrithérapeutique ça veut tout di c'est-à-dire dans on se focalise sur l'aliment l'alimentation dañuy dañuy daal di basé aussi li nga xam ne mooy lekk bu ñuy façon du ñuy lekk ci jamono bi ñu gis nii li may fi may ubbee mooy euh, ñu ngi jógee tëj benn bunt bi nga xam ne bu am solo si suñu wàllu dund suñu benn euh, année at bu ñuy naan Euh, si benn at bu ñuy naan at 2023 daanaka fu mu nekk nii moom dugg na si dans l'histoire ba dafa nekk suñu passé li passé nag passé na mais des fois dinañu soxla dans li nga xam ne loo nekk suñu passé indi ko suñu kanam pour xool na la ñuy avancer si certaines choses mais aussi li may faral di wax nit ñi li nga xam ne mooy gaañ doomu aadama saa su nekk mooy booy faral di seet li nga xam ne lu la li la passé ngay faral di jël li nga xam ne loolu c'est des mauvais souvenirs li nga xam ne da nga gaañu woon si loolu nga bu ko indi teg ko sa kanam di si xalaat saa su nekk yow doo mus a avancé dafay tax toujours yow da ngay nekk si benn place kon nag boo nekkee dans le présent fexe nga liggéey lan moom li lay yóbbu si dans le futur li nga xam ne moo lay indi suba mais lu passé c'est c'est déjà dans le passé ok léegi nag li ma bëgg a euh, leeral si côté boobu mooy lan mooy ginnaaw bi nga xam ne ubbi nañu paas bu bees ubbi nañu kër bu bees kër bi nga xam ne boobu dafa war a bokk suñu dund bokk na suñu mission mooy lu ñuy naan année année bu bees bu ñuy naan 2024 ndax année bu bees dafa war a nekk dund bu bees année bu nekk bu bees bu nekk dafa war a ne dund bu bees si doomu aadama mais nag balaa ñuy dugg si dund bu bees dañu war a taxaw tem xoolaatal def jàngat si li nga xam lu ñu it a jun dund si at bii nga xam ne moo paase bu ñu weesu at bii bu paase est-ce que sama wér-gi-yaram daanoon na taxaw comme mu war a amee est-ce que at bii passé amoon naa wérug yaram bu taxaw est-ce que at bii passé dama daan am ay feebar yu bëri est-ce que at bii passé lan laa manqué woon li ma waroon def lan laa waroon def te def ma ko lan moo nekkoon sama gàllankoor sama war a dund lan laa am waroon am te mënu ma ko am ngay teg ay questions yu bëri yi nga xam ne yow war nga nekk en mesure pour répondre ces questions yi nga xam ne teg nga ko sa kanam léegi nag loolu dafay dafay tax nit ku nekk mu daal di càmbar boppam daal di xool boppam laaj moom mooy kan. man maay kan lan moo may xaar te fan laay jëm te fi may jëm ndax am na li ma soxla pour mu dimbali ma ma mun a egg fi ma war a dem lu am solo nit ku nekk mu laaj loolu léegi nag laaj boobu nag dafay laaj ñu am ay jàngat bu ñu mun a indi pour ñu mun a xam na la ñu war a avancer si li nga xam ne mooy loolu mais nag dafa am lu am solo li ñuy naan nit ku nekk dafa am lu muy tase si kaw si dundam mais lépp looy jànkantoo sa dund bul ko xeeb na nga considération bu am solo ndax xam nga ni lépp loo daje si kaw suuf rek xam nga ni loolu dina am lu mu lay jëriñ ëllëg léegi nag boo fexe booy nekk boo nekkee ki nga xam ne da ngay faral di négliger di xeeb di certaines choses benn jour dina ñëw nga soxla ko doo xam nan ngay fexe ba nga am ba nga rattrapé loolu moo tax amul dara li nga xam ne lu ñu war a xeeb si kaw suuf suñu war a dund li ñu war a def mooy lan mooy taxaw tem xoolaat jàngat am jàngat ci li nga xam ne moom suñuy dund nan la ñuy développer li nga xam ne moo ñu manqué. nan la ñu développé li nga xam ne war nañu ko am te mënuñu ko am mooy lan surtout mu gën a am solo mooy wàllu wér-gi-yaram parce que doomu aadama tey lu muy faral di xeex lu muy faral di dox di daw bés bu nekk mooy nan lay amee koom-koom ba li nga xam ne moom mooy wér yaramam da ngay daw bés bu nekk pour dajale alal nga fàtte li nga xam ne loolu moo gën a am solo moo gën a jaral toppatoor mooy wér-gi-yaram doomu aadama ndax boo amee alal te amul wér-gi-yaram sa am am bi amul benn jëriñ boo amee alal bu dul jeex te amul wér-gu-yaram sa am am benn amul benn jëriñ ndax wér-gu-yaram mooy joxe dund bu neex wér-gu-yaram mooy tax lépp looy soow si kaw suuf nga mun ko am comme ni nga ko war a amee mooy tax nga sentir le goût de la vie moo tax ngay sentir bànneex àdduna mooy wér yaram boobu nag te boobu nag doomu aadama dafay dem ba nga yaakaar ni am diplôme mooy dund mooy tax nga am dund bu neex wala am alal mooy tax nga am dund bu neex ñaata ñooy daw du ñu lekk lekk bu baax. ñaata daw du noppalu ñaata ñooy daw di dajale ay kër yu rafet te mu mënuñu fexe ba toog bënn jour di xalaat man nan laay def mu ma am wérgi yaram bi nga xam ne sama yaram soxla na ko nii lay dawee ba bënn bo benn jour xaalis bu mu liggéeyam yépp daf koy jëlaat dugal ko ci faju amul clinique boo xalaat dem na fa hôpital boo xalaat dem na fa dispensaire boo xalaat dem millions yu ma doon liggéey ay at daf koy jëlaat di koy dépenser pour faju est-ce que jar na ko. kon nag dafa jot ñu toog xalaat xoolaatal suñu bopp waaye nag si li nga xam ne mooy jàngat boobu ñuy jàngat si wàllu cadeau de la vie bi mu leen di may tey du bilan de la vie mooy aspect bi nga xam ne nit ku nekk euh, ay aspect yi nga xam ne nit ku nekk da nga ko war a am jàngat si loolu mooy aspect psychologique dañuy si ni feebar yi bëri na lool te feebar yu tamu bëri c'est parce que nit ñi kenn waajalu leen si ay jafe-jafe. kenn waajalu doomu aadama si lépp lu muy dugg mu xam soo duggee lépp lu mu fa fekk nan lay jàng nan lay taxawee am ban taxawaay la war a taxaw si lu muy fekk si biir lu mel ni par exemple sëy lu mel ni par exemple si liggéey lu mel ni par exemple si tukki nit nit ku nekk looy looy sóobu dafa war dañ la war a préparer nga am jàngat bu mot sëkk si li ngay dugg boo fa eggee boo lépp looy daje nga xam noonu nan nga ko war a nan nga ko war a teeroo pour nga bañ a am jàngoro. pour nga mën a am jafe-jafe am ma ne pour nga bañ a am jafe-jafe c'est parce que psychologiquement doomu aadama léppam président mooy kii kii mooy président doomu aadama kii mooy chauffeur doomu aadama kii mooy diriger lépp luy nekk si doomu aadama te kii bu amee problème rek doomu aadama léppam dafay taxaw. mooy le central du système nerveux doomu aadama dafay gaaw a jaxasoo dafay gaaw a mer dafay gaaw a tiit te boo jaxasoo rek dafa mel ni da ngaa jël poisson kaas poisson di koy naan boo meree dafa mel ni da nga jël kaas poisson di koy naan. boo xa boo jaxasoo rek xam boo stressé rek xamal dafa mi da nga jël kaas poson di koy naan saa yoo mënee rek xamal ni jaxase nga sa système biochimique mënatul def liggéey bi comme ni mu waree te loolu dafa nekk lu nekk lu am solo li nga xam ne nit ku nekk dafa war a taxaw am jàngat bu rëy mu xool nan la war a préparer psychologiquement mbir yi mu xam ne muy wudu ko léegi na nga ñëw lu gën am solo mooy l' sociale ndax l' aspect social dafa bokk ci santé lu ñuy naan le bien-être social boo xool le bien-être socialement. on n'est pas bien parce que suñu dëkkuwaay bi dafa bëri ay jafe-jafe yi nga xam ne doomu aadama bu nekk mu ngi am bët bu muy xoolee moromam ki nit ki nga xam ne nga gis sa morom am na mu koy iñaane lu mu lu mu am wala mandu bi amatul si dëkk bi nit ku nekk mu ngi jéem a xool nan lay liggantee moromam pour yàkkal ko léegi nag spirituel psychologiquement nit ñi dañuy am jafe-jafe si wàllu côté boobu jafe-jafe boobu nag dafay dem ba en certain indi psychologique problème psychologique bi nga xam ne doomu aadama dafay am li nga xam ne dafay dem ba am impact dafay dem ba am jeexintal si wàllu wér-gi-yaramam daanaka gis ni doomu aadama bu nekk dafa war a am lu ñuy naan jot bu rafet si lu muy dund si kaw suuf lépp lu muy xool ak lépp lu muy gis ak lépp muy dégg dafa a am lu ñuy naan jot bu rafet le tubaab di naan être optimiste mais être pessimiste mu gën a bëri jamono bi tey am ñaaw jot mu ne ku koo gis muy ñaaw jot lu bëri rek fu muy mujjee problème rek jafe-jafe rek lay dund. parce que ñaaw jot boobu nag daf koy dugal si ay problème daf koy dugal si li nga xam ne dafay xalaat li nga xam ne daf dafay dem ba def li nga xam ne waru ko def après mu rëccu parce que ñaaw jot bu moo koy yóbbu moo tax ñu ne nit solution bi mooy lan dinaa si ñëw solution bi mooy nit da nga war a góorgóorlu nga am jot bu rafet si lépp li muy dund si kaw suuf mais aussi euh, si wàllu gëm-gëm ndax lépp dafay commencé dafay tàmbali si gawul gëm-gëm nit li nga gëmul rek munoo dem lépp looy def te amoo gëm-gëm si li ngay def rek doo avancé doo dem fenn. sa seen liggéey boobu du mujj du mujj continuer léegi nag ngay seen doomu aadama lépp lu muy dund si kaw suuf il faut que mu am fondement bu dëgg si wàllu gëm-gëm si mbir boobu léegi nag gëm-gëm nag dafa nekk dafa am lu am solo si wàllu wér-gu-yaram doomu aadama doomu aadama lépp loo gëm rek da ngay si dafay am jeexantal mais boo gëmu rek du am jeexantal même suuf boo tibbee suuf nga gëm ni suuf bii su ma ko naan su ma ko lekkee wala su ma ko defee si ndox man naan dina ma faj dina la faj da ngay si résultat parce que gëm-gëm bi nga am mais boo amee gëm-gëm nii li ngay faju du la faj non da ngay sonal sa bopp rek mu doomu sa faju loolu laay wax ñi nga xam ne dañuy am jabet wala dañuy am cancer nga dem hôpital ñu ne la yow sa feebar bi du mus a wér nga gëm ko du mus a wér mukk mais boo gëmee nii feebar bi dina wér amul benn feebar bu dul wér kon ngay si ni di nga mën a mucc si li nga xam ne mooy si jafe-jafe boobu kon nag gëm-gëm dafa am solo si doomu aadama mais aussi lu si topp euh, aspect relationnel aspect euh, familial dafa am solo si doomu aadama doomu aadama relation yi ngay am il faut nga xool nan ngay développer relation yooyu ñi nga yi nga xam ne yàlla dafa boole ak dafa dafa la boole ak ñoom ndax loo gis xamante boo gis am na li yàlla namm si diggante xamante boobu nga jéem a xool nan ngay développer si relation yooyu mais aussi au niveau de l' aspect familial nan ngay jéem a aménager temps pour jéem defar li nga xam ne lu gën a am solo bu ko defee yow relation bi nga xam ne bi nga war a bi nga war a euh, tiisee bi nga war a ñaw sa diggante ak sa famille mu nekk relation bi nga xam ne bu mucc ayib parce que loolu yëpp bu amul rek da ngay si ni psychologiquement yow doo nekk problème yi day gën bëri rek mais tant yaa ngi defar relation professionnelle yaa yaa ngi defar c'est-à-dire ñi nga am bokkal liggéey tant que pour nga nekk ngeen nekk si dans l'harmonie ngeen nekk si jàmm ngeen di waxante lu baax di dimbalante tant loolu amul rek da ngay psychologiquement yow ti doo nekk mais aussi familial familial aussi boo defarul côté boobu doo nekk mais aussi relationnel sa xarit yi boo defarul doo nekk loolu yëpp dafay am impact dafay am jeexantal sa wàllu yaram moo tax wér yaram du yaram bi kese. lu gën a am solo si lekk bi dëgg la naam mais am na lu gën a am solo li nga xam doomu aadama daf koy fàtte mooy li nga xam ne li ngay sëkk si ñi ngay bokkal si di dund li ngay defaree seen diggante ba nga mun a am li nga soxla il faut nga taxaw si loolu waaye tamit loolu pour mu am il faut kenn ku nekk mu daal di participer. mu daal di taxaw joxe li nga xam ne li ko lu mu am te nit mënoo joxe li nga amul nit li nga am donc mu mën a ngay ngay joxe il faut nga am dara li ngay joxe te nga réew dem ba gis nii àdduna daf ñu jàngal lu bëri daf ñuy jox lu bëri li nga xam ne mënuñu ko jeexal léegi nag comme àdduna jox na la ñu bëri li nga xam ne mënuñu ko jeexal li nga xam ne léegi nag ñun il est temps de rendre à à la vie un bi nga xam ne ñun àdduna defal nañ ko ba pare parce que yow bi nga nekkee depuis bi nga nekkee xale bi nga nekkee bébé bi nga dem ba mag àdduna lu mu la defaral mënoo ko delloo léegi nag ñu ne lu gën a am solo si dundu doomu aadama mooy être au service de la population nekk si taxawaay doomu aadama di dimbale doomu aadama di daw servi doomu aadama loolu moo gën a am solo ak lépp loo mënta am si kaw suuf mu nekk alal mu nekk xam-xam mu nekk doole mu nekk en tout cas bépp moyen bi nga mën a am comme li ma waxee si njëkk bu jëlbeen bi rek doomu aadama boo gis dafa juddoo ak alal kenn juddoo nekk am pauvre amul alal bi mooy lan du xaalisu kese mooy alal. ki juddoo yàlla may ko intelligence alal la bi nga xam ne mun na dimbale doomu aadama ki juddoo yàlla may ko doole alal la bi nga xam ne mun na ko dimbale mu néew doole bi ki ki juddoo ak lépp loo mun a am li nga xam ne c'est un potentiel bi nga xam ne da ko judduwaale nga war ko dimbale doomu aadama loolu da war a nekk dans le service de la population kon nag ñu gën a am solo doomu aadama mooy il faut être toujours dans service il faut être serviable il faut toujours ngay dimbale doomu aadama ndax dimbale boobu moo lay tax yow nga mun a am li nga xam ne moom mooy tax nga mun a am euh, dundu bu ndeex nga mun a am dund bu dal nga mun a am li nga xam ne dafay tax yow doomu aadama ku la gis dafay am ñeewantal si yow loolu nag lu am solo euh, fi may jeexale di nga damay may tuuti rek fi may jeexale mooy solution yi nga xam ne war nañ si taxaw pour ñu mun a éradiquer certaines difficultés yi ñuy faral di dund solution bi nag damay jéem a euh, prêter euh, le baton d'un pèlerin bi nga xam ne wax na wax bu am solo mooy le prophète ki nga xam ne moom moom mooy docteur bu gën a rëy si kaw suuf bu gën a mag si kaw suuf mooy jàngatkat bu gën a gën a rëy si kaw suuf pédagogue bu gën a rëy kaw suuf dafa wax bi wax bi nga xam ne parce que jàngat bu muy wax fii amul musulman amul chrétien ñu ñëpp a si yem dafa ne dafa ne construire une pirogue résistant car la mer est profonde avec les vagues na nga tabax gaal bu dëgër. parce que sa euh, parce que fi ngay jëm dafa sori voyage bi ngay jëm dafa sori te dafa xóot fi ngay jëm boo amul gaal bu dëgër ah fi ngay jëm doo egg mooy àdduna de mu ne na nga fexe remplir la la pirogue de bagages car la le le voyage est long na nga fexe sa sa gaal boobu nga daal di ko feesal ay bagages yu am solo. waxuñu bagage yi nga xam ne dafay bëri nii mais lu am qualité li nga xam di nga mën a dimbale doomu aadama yi ndax voyage bi dafa gudd parce que di nga soxla li ngay lekk di nga am soxla li nga xam ne mooy tax nga dëgër mooy ne waaye tamit diminuer ta charge psychologique na nga wàññi xalaat yi nanga nga wàññi euh, stress bi na nga wàññi yeneen yeneen jort yi nga daal dund yemale sa dund bu ko defee yow doo amati benn ragal bi nga xam ne bu ngay boo xasee ba jot fi nga xam ne bu pour jiggi fi nga war a taxaw pour mun a dem dem faji sa soxla mu ne boobaa doo am benn ragal bi nga xam ne bu lay fekk si loolu ndax mu ne marchandise bu bëree rek li nga li nga yenu bu bëree sa bopp bi rek doo attan pour mun a jéggi kon lu am solo la wax fii mais am na fu mu daanelee fi nga xam ne dama bëggee kenn ku nekk mu am jàngat mooy lan dafa ne kenn ku ne da nga war a yar sa bopp nan nga yaree sa bopp mooy yaral sa bopp si jamono bi nga xam ne da ko war a forcer si li mu bëgg nga xam ne ni sa bakkan dafa bugg lii mu leneen li sa bakkan li mu bëgg nii boo ko toppee loraange la lay indi mu ne nga bañ mu ne bañal di topp li nga xam ne sa bakkan lu mu bëgg ndax toujours daf lay yóbbu fi nga xam ne ay tuuki dina lay doon mu ne waaye tamit fexe ngay jéem a gurguru di bàyyi di xoolu ayib da te yaa ngi fatte say ayib mm-hmm. mu ne booy xool ayib jàmbur da ngay fàtte say ayib booy xool mbootu jàmbur da ngay fàtte sa mbóot mu ne te yow mbóot bi ngay sa mbóot yi ngay fàtte di xool mbootu jàmbur mu ne bu yàggee di nga dem ba yow di nga dugg yaakaar yow téye parfait te yow ni ngay xoolee mbootu jàmbur ñoom ñu ngi lay xoolee sa mbóot tamit si côté boobu mu ne toujours na nga fekk nga sutura sutura sa morom mm-hmm. ndax booy sutura sa morom yàlla dafa lay suturaal mu wax bu am solo waaye nag mu ne fexeel nga daal di euh, ni ñu koy waxee euh, nga daal di xisaab sa bopp ni koy waxee si olof daani régler sa bopp Euh, nga bañ a régler sa moro morom doomu aadama ndax boo koy régler te yow yaa ngi nii yor ay ay bi dul jeex mu ne bu boobaa loolu lan lay niroo mun a fexe nga am ñaari bët benn bët xoolal les qualités ki nga nekkal ndax amul ko amul défaut dans la vie koo gis am na défaut am na qualité mu ne fexe nga xool say défaut say qualité yow nga xool say défaut yow nga sa bopp au lieu yow nga koy rectifier yow rectifier sa bopp nga xool say qualité mu ne boobaa boo leen toogee di ngeen mun a ànd yéen ñaax mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne nit ku nekk dafa war a am jàngat bi si dundoom bu ko defee yow fépp fooy dem doo mun a am jafe-jafe si ñi ngay nekkal ndax doomu aadama ku nekk ni ñu ko yaree bokkul kenn ku nekk ak ni muy gisee bokkul kenn ku nekk ak nu muy xalaatee bokkul kenn ku nekk ak bëgg-bëggam waaye yàlla dafa bind yemuñu hmm. baaraam yi tolloo ñu mukk te duñu mos a tolloo bëgg-bëgg yemuñu te ñu mus du ñu mus a yem gis yi bokk bokkuñu te ñu mus a gis xalaat yi bokkuñu te ñu mus a gis xam-xam bi bokkul xam-xam comme li may faral di wax rek géej la géej bi nga xam ne ku ne li nga li nga yóbbu loolu ngay am kii pan la yóbbu kii suwa la yóbbu kii sitane euh, la yóbbu li nga tibb nga yaakaar li nga am sa morom kii am pan bi lu mu am yow mënoo ko am si sitane bi li nekk si bi mënul nekk forcément moo nekk si pan bi kenn ku nekk li ngay fi nga yem rek foofu nga yem kon moo tax vraiment lii solution bi nga xam ne dama koy apporter euh, dans la nouvelle année 2024 di leen wax ni cadeau bi ma bi ma apporté mooy cadeau bi nga xam ne bu gën ci cadeau yi bi nga xam ne kenn ku nekk toogal na nga tëju sa biir néeg nga jéem a xisaab sa bopp nga jéem a régler sa bopp nga jéem a xool yow ma sa manqué manqué nga jéem a rectifier sa manqué manqué yooyu nga xool li nga xam ne li nga war nga ko def te defoo ko nga jóg ma nga def ko nga xool li nga xam ne dafa manqué sa wér yaram nga jéem a xool nan ngay tabaxee sa wér-gu-yaram boobu ba nga amaat wér-gu-yaram bu qualité kon vraiment pour bañ a guddal euh, dinañ wax fii ba suba parce que li ma préparé bëri na donc euh, dinañ wax fii ba suba li may li may war li ma bëgg a tënk mooy euh, la santé kenn ku nekk jamono bu ñu toll nii nit ñi ñu ngi utiliser doomu aadama santé doomu aadama di business les gens ont en train de faire di business sur notre santé. Mm-hmm. man nag dama dama ne man jiitu naa numéro un dama ne maa bañ duma nangu kenn di business ci sama yaram. business sa yaram mooy lan di lay jox lekk bu bon pour nga feebar ñu récupérer la ci ay garab di lay jox ay calmants loolu ak bëri jamono bii tey kon nag dafa dafa dafa dafa dafa toll dafa tee xaw ma dafa jot ñu jóg taxaw bañ ñu ne maa lan kenn du business ci sama yaram. kenn du business sama wér gi yaram nan ngay bañee loolu mooy di lekk li yaram bi soxla di bàyyi li nga xam ne yaram bi soxlawu ko di xool li nga xam ne yow loolu mooy tax nga am sa wér gi yaram di bàyyi li nga xam ne dafa lay indi feebar kon nag vraiment di leen souhaiter euh, di leen wax ni yàlla at bi nekk at bi nga xam ne bu baax si at yëpp bu gën si at yëpp yàlla at bi nekk at bi nga xam ne bi yàlla defal ñu musal si seytaan yàlla def suñu defal ñu euh, may ñu mujj bu rafet. mucc ñu si seytaan may ñu mujj bu rafet def suñu poos yi dara comme gars yi nañ ko waxee ak poset yi dara yàlla jege ñu de suñu baakaar yi euh, yërëm ñu euh, yàlla yàlla génne ñu li nga xam ne mooy feebar xool yi nga xam ne si doomu aadama yi génne feebar bi nga xam ne bu ñu naan iñaan béw bi génne ñu feebar bi nga xam ne soxor génne ñu feebar bi nga xam ne rëy ndax nit ku rëy du nangu dëgg loolu yonent bi wax na ko mu nekk li nga xam ne loolu dafay pénaliser lu bëri dans ta vie tu ne pourras avancer si ay mbir yu bëri donc loolu nag ñaan bi nga xam ne vraiment maa ngi koy tibb sama xol di tibb ñëpp ñi nga xam ne maa ngi may suivre au niveau national et international vraiment di leen wax ni jóg leen taxaw ngeen gérer seen alimentation jóg leen taxaw ngeen gérer seen santé ndax santé dañ koy tabax fu ñu koy tabaxee si loxo bi ngay lekkee ndax lekko loxo bi ngay lekkee mooy tax nga am santé bi nga xam ne yaram bi soxla na ko di wax ni asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.